Ami Ndiaye Dia ñii bi di député dañ ko agressé tey fu mu nekk nii sax kenn amagul lu leer ci li nga xam ne moo di état de santé ñi nga xam ni ñoom la ñu wax ni ñoo ko agressé euh, décerné nañ leen mandat dare ñu ngi leen di seet pour jàpp leen waaye si dernière nouvelle yi génn ñoom député yooyu tamit porte nañ plainte Ami ñii bi Fatou noo gisee mbir ouais tout d'abord maa ngi nuyu sunu mbokk internet yi ñu seetaan di nuyu sama sama nawle bi tok fi. Machallah di di le remercier aussi ci invitation bi. Hmm. waaw pour problème ami Ndiaye ñibbi bi mom, vraiment man dama ko ñaawlu dama ko ñaawlu lutax. lan nga ñaawlu Luñ ko dóor wala moom li mu def texte bi am biir assemblée nationale la njëkk a ñaawlu. ah mom nga ñaawlu. parce que assemblée nationale du lieu de guerre du lieu de bataille du lieu bo xamné règlement de compte la assemblée nationale c'est un lieu bo xamante pour ñu dem nekkal fa askan bi la. defe naa ñi nekk assemblée di euh, di def yenn yenn brutalisme yi dañu xam lan mooy le vrai sens du mot député. Hmm. parce que bu ñu ko xamoon defe naa seen xel du nekk sax ci. ñuy def yooyu. Mhm. parce que ku ñu ne yow falal la député boo dee nit ànd sa conscience boo tëddee waroo nelaw ndax parce que dañ la dénk baas baatu askan wi. Mhm. te baatu askan wi du toll ni réewu Sénégal ñu tànn la yow Doudou la dénk nañ la baatu askanu Sénégal defe naa bu dee nit nga wala am am nga tuuti xalaat yow ba tëddee waroo nelaw ba sa xel di nekk ci xuloo wala xeex wala agression. premier point bi. Hmm. deuxième point bi muy ñëw mooy acte bi dama ko ñaawlu. Hmm. lu tax ma ñaawlu ko euh, ak nu mu mënti demee Amy Ndiaye ñi fi jigéen la te jigéen ku ne xam ne ne dooleem bariwul te góor mooy support hmm. ak nu problème bi mënoon demee rek moom mii góor mënoon na am maîtrise en tank góor bu mu doon en tant kilifa bi ñuy woote na ñoom ñooy suñuy kilifa en tant que ñu ne jigéen matul góor moo koy mottali kon moom mënoon na am maîtrise. Mhm. troisième point bi may ñëw. Mhm. nga baal ma ma yeggali rek. Mhm. mooy que ni li ma gën a ñaawul encore act bi mooy que ni moom mi def loolu waroon na xalaat bi mu yëkkati loxoom di dóor Amy Ndiaye ñibbi que ni moom jigéen moo ko jur. ne serait-ce le minimum de respect pour sa maman mu waroon mañ a dóor Amy Ndiaye ñibbi en tant que femme. waaw Ndeye Ndiémé nee nañu honoré leen jigéen ndax jigéen nee nañ boo ko boo ko sargalul. tag tagal ko jox ko cër bi mu war a am waroo koo dóor ci biir assemblée nationale bi looy tontu si loolu. waaw d' abord Doudou damay nuyu internautes yi nga xamante ne ñu ngi ñuy seetaan. Hmm. di nuyu Ndakaaru di nuyu waa Medina bi nga xam ne falaa falaa falaa falaa fekk baax di leen euh, sant di leen gërëm mais damay revenir ci rôle député à l' assemblée nationale. Hmm. Doudou député dañ ko dégg dénk ñetti yëf. Hmm. Députés, votent à la loi à la place des citoyens mhm. les députés contrôlent discutent et votent les budgets des ministères Les mhm. le député contrôle les actions du gouvernement mhm. s'il y a besoin même de créer des commissions d'enquête donc jàpp naa l'hémicycle c'est le Sénégal en miniature ñu toog fa di fa représenter ay nit mën naa ni bi ñuy waaj dem élection législative tase nañ ci benn plateau. Hmm. ma ne la ku ci bàyyiwul muy jigéen nag di góor. Hmm. dem toog ci biir hémicycle ñu lay yónni yónni dof ak di la yabal ngay wax waxi dof kooku sa dem assemblée war nañ ko seetaat et puis bi ñuy élire député war nañ ko xoolaat. lu tax mooy lan. mooy que ni dafa am ñoo xamante ni il faut que ñu jàngal leen d' seen rôle foofu ca biir assemblée lan la d' abord. Mhm. tant que xamuloo ko muy indi yu mel nii nga ciy dugg. parce que man am na benn acte bu am assemblée daf ma tiital parce que dañu ñëw assemblée ñu am ku mel ni soxna Dieng Mbacké ñu yàgg ci ëtt politique xam nañu ko ñu xëy benn suba changé ko ak ku ñuy wax Koura Macky là mané nak les choses volent trop bas. non moom démissionné. non xamna ñu démé ki kii non officiellement ñu sax dugg ci ay détails. ah bon mais. pour yow dañ ko forcer à la démission mais quand même parce que tamit daf ñu am man ni ma euh, assemblée bi ni muy déroulé bo xolé ñi ñëw assemblée bo xolé sen comportement mais en fait li ñu fay voter yépp intéressé wu leen ñii dañoo xeex en fait parce que violence dañu koy ñaawlu ci bor nak bu mu mënti jógee. mais dafa am loo xamante ni sénégalais dañ koy fàtte gis nga duudu pas-pasu ñun sénégalais. Hmm. nit mën nga ko teg taxaw jàkkaarloo moom saaga ko ndey du réagir mais nga tudd wasilaam mu taqali kook ak sa hmm. gis nga waxi sëriñ la ñu war a bàyyi ci biir assemblée bi. Hmm. jàpp naa ni même sëriñ buy def politique am nañu ay ay lieux yu nga xam ne war nañ fa mun a dem foofu waxee ko fa mais nañu xaar meeting xaar rassemblement boo xamante ni bii politiciens yi ñoo fay daje ku nekk jël sa sa sa sa sa sa kàddu wax fa lu la neex. C'est un problème la mais fi Sénégal la en miniature ñu Sénégalais. xam nga lu leen ñor moy ñett yi fi lim avant. Mhm. xex bi ko arrêté. mais Amin Ndiaye ñi bi des ko won non xam nga xam nga xam nga. Euh, non ñu door nangul ni dañu def erreur waruñu door xam nga mo lay wax chaque jour damay ne nit surtout góor assemblée bi damay ñaan mhm. surtout opposition bi nañu ak retenu ak parce ah que bon? yi yii ma gis. sen kaw lañ jëm. mais regarde ce qui s'est passé là le ngi koy seetaan barki Demba Barthélemy le maire de Dakar était là di wax Coura maki daal la ko sànni. waaw loolu mom ñëpp a ngi koy. xam nga loolu provocation musu ko wessu ma mhm. ngi dégg sax ci ay ci ay ci ay médias ñuy né dafa nekkoon en état mais duudu ñun Sénégal xam lu ñu baxo mhm. bo yoree amu bu ndaw da ngay tok régler ñun sénégalais ñun loolu lañ xam. Mhm. booy fecc sax ñu ne la déet bul yëngu. waaye nga ne ca assemblée ba mel ni ku nekk en transe. Hmm. mais Doudou est-ce que seetaan nga plénière yi bi mu commencé. bi mu commencé ba fi ñuy taxaw nii li fa am yëpp en tout cas man ko tiitul ci assemblée bi man tiit naa ci. Hmm. li may ñaan rek mooy góor ñi fa ne ñu am retenu hmm. parce que ñii ma gis ils sont prêts à tout. Fatou Ndoye ñu ne femme bi moo war a am retenu te jigéen ñi waruñu woon nangu ñu leen di yónni yónni dof est-ce que nangu nga loolu. non dama yaakaar ne. fii kenn nekk fi dof bañ la yónni ay yónni dof def naa boo bëggee yónni dof da ngay wëri dof yi. Mhm. ku liggéey ba nekk député kooku elle est loin d'être dof benn. Mhm. te defe naa ci parti parti APR. Mhm. wala mën naa ne benn boo ko yaakaar ku ñu yónni amu fi ndax ku ci nekk mën nga taxaw dëggal sa bopp ku ci nekk mën nga taxaw défendre sa bopp ku ci nekk mën nga taxaw défendre sa leader. kon yonenté amu fi xuloo mo am ku nek réagir nga de ta façon mu nek acte bu ñepp ñaawlu ba la CEDEAO dem ci guddi rek lim ci génné ñepp liir nañ ko. hmm so mën naa la génne léegi titre bi. Hmm. bima léré titre man dama russe en tant que sénégalais. Hmm. mais en tant que jigéen nga xam dama am wajur bu goor ñu yëkkati lén di ko teg ci Sénégal. hmm ben ma revenir à tuuti rek ci li madame Ndiémé wax. Hmm. ci li xew ci assemblée. mu ne assemblée niñ fay duggal lañ leen war di xol wax na dëgg tout à fait d'accord avec yow parce que dañ né l'homme qu'il faut à la place qu'il faut ñi fa nek ni opposition bi hmm les xolé vidéo bi nga ci am seetlu mom mom ko gorki mom moko ñëk lancer parole avant avant Amine Ndiaye di réagir lan la ko wax xëy mom dañu laal xëy na wasilaam wala ñu laal gëm-gëmam mais aussi kii dañu laal leaderam ku nekk sa xol nga am te ku nekk li nga gëm mooy sa xol. ah kon leader moo war a nekk ci kaw wasila. non non non ah, néew ma leader ah, moo nekk rek damay laaj. leader. Hmm. néew ma moo war a nekk ci kaw wasila. Hmm. mais le président de la république est le père de la nation. Hmm. kon loolu bu ko kenn fàtte. c'est une institution. institution la. kon institution ni ñu joxee cër. defe naa sunu sang yi ak sunu sëriñ yi. moo leen di nuyu de passage. noonu lañ noonu la war a joxee cër. institution. du hmm. dëgg. Hmm. kon nag ku nekk sa gëm-gëm nga am. Hmm. te ku nekk sa gëm-gëm mooy soxal te ku ñu laa soxal nga yëngatu. moom moo njëkk lancé parole à Ami Ndiaye. Ami Ndiaye tontu ko xëy na tontu bi mu ko tontu. moo ko naqari. mu déplacé wu fi mu jógee ñëw ba ci Ami Ndiaye pes ko. imagineel. bu fekkoon dañoo delloo ko bu fekkoon dañoo delloo sax non waaw dafa nànk aussi madame Ami Ndiaye delloo ko chaise. d'accord na.

jotul ci moom pour parce que chaise la am dóor na ko ko. Mhm. muy acte bu ñu. mais légitime défense. légitime défense comme ni ko waxee. kon kañ a jeex na un un la wala. waaw kon léegi lan moo fi jar wax. acte bi nag lañuy ñuy ñaawlu en tant que góor buy dóor jigéen. fan la ko dóoree biir assemblée nationale fi nga xamante ne liberté d'expression la ku nekk sa ngaa wax sa xalaat ku nekk sañ ngaa wax sa xalaat benn. Mhm. sunu sëriñ yi nag dañ leen di jox cër bu baax di leen war a maan ndax dañoo judd ci këru diine ñu yar ñu ci màgg ñu jox yar ñu ci ñuy respecté kilifa diine yi mais kilifa diine bu demee ma ne man politicien la summi yére kilifa diineem sol yére politicien taxaw wax ay kàddu politique defe naa buñ la tonton tontu politique warul metti warul ñaaw. ci sama xalaat. bu fekkee nag da nga ni politicien nga et démocratie bu dee aussi mi ngi dox ci réew mi. boo summee sa yëre. marabu teg ko sa yëre kilifa diine nga teg ko à côté nga sol sa yëre politicien nga ne en tant que politicien bi nga doon moom laa taxawee nga wax waxi politique ñu la tontoo tontu politique buñ la jéem a solal sa yëre marabu ne li liñ la wax du lii parce que kilifa diine nga ndax ba nga hmm. koy wax solo yëre kilifa diine bi. Hmm. loolu laa amoon waaw ñu ne kilifa du kilifa diine lañ doon waxal yéen tam yéen waa yeewi kii responsable politique bi nga xam ni moom moo diriger pur moom lañ doon waxal. man dama yaakaar ne dañu battre campagne ci législative am hmm. temps politique élection ñëw ñu gis li fa am hmm. jàpp naa ne politique war na mën a jeex ci biir assemblée nationale hmm. nee naa la ñetti point yi képp ku ci génn teguwa ci yoon ñetti point yi ma fi rim ci loolu député ku ci génn rek teguwoo ci yoon. mais nag dóor amina si ami ami yi yow sax naa yow euh, sax yow mi bokk yeew yi sax naa war nga ko dem seeti nag masawu ko te nga koy seeti. Ah, doo seeti am yi. <laughs> donc mu xaar mu ma man tamit. <laughs> ah non du du gis nga gis nga Sénégal. Hmm. foog ñu foog ñu tëggaat suñu bopp ñu xool ni ñuy def. Hmm. parce que gis naa fa ay député yoo xamante ni. Hmm. xëy na am na yenn comportement yi duñ ko def. parce que yaakaar naa ne ku yaroo ci keppaaru yenn homme d'État yi wala femme d'État yi doo ko hmm. def tey da ngay dugg assemblée mooy li ma ñëw sànq di ko wax hmm. ma ci revenir aat muy soxna jàng je pensais pas que comportement bi Coura Macky am biir assemblée moom dina ko am hmm. non non ma ko gëmoo ko non moom doon na yegg ba fi ñi yegg nga dem gis ku mel ni Fatou Gueye vice-présidente assemblée nekk pionnière ci parti socialiste yaroo ci keppaaru Ousmane président Ousmane Tanor Dieng dem si yàlla si yaroo ci président Khalifa Sall keppaaram yaroo ci keppaaru ku mel ni ab maire Abibatou mbay xam nga kooku yenn euh, façon de faire yi duñu ko def ndax jàngal nañ leen àddina hmm. gis nga dafa am yoo xamante ni nit dafa yedd boppam yenn comportement yoo xamante ni rafetul hmm. on parle d'agression bu ñu fàtte ni euh, gëni législature bi ñu génn moom Diarra Fam nañ ko xeex bi assemblée Mhm. duutu yaa ngi fi woon. dóor ko mbéj. dóor ko mbéj. ana faa mu bennooy fu ñu nekkoon. xanaa mhm. maam jaara du jigéen. jigéen la kañ. Mhm. nañu bàyyi. Euh. par parloo bi nekk jigéen waraloo jox droit. nga tëb ay ni jàkkaarloo ay ponk li góor ci biir assemblée bi dégg nga bari ki dem dafa am ay góor jigéen ngeen. yooyu dafa rëy. dañ ma excuser ci terme yi may utiliser sax. xam nga nit liñ naan doo ko topp ba mu sës mais li ma leen di wax rek député. Yewwi Askan Wi nañu ànd ak retenu face à ces femmes là. damay ubbi beneen sous mais ba tey rek ci thème bii est-ce que Fatou Ndoye yow tey jii boo nekkoon député dinga nangu comportement bi Coura Macky am ak Amy Ndiaye ñii bi am est-ce que di ko nangu am. xam nga question boobu dafa sensible. Hmm. ndax ku nekk ku nekk. Hmm. ak niñ la yaré ak niñ la yaré ku nek ak say euh, mën numa ko mën waxé ku nek ak euh, ak sa gis-gis ak sa taxaway bi nga am hmm. ci fi nga ci fi nga nekk hmm. loolu mënuma ci wax nak nekuma à leur place hmm. xeyna buma nekkon à leur place ñom ñu subir lima subir man xeyna ma defé comme ñom wala ma def pur wala ma bañ ko def mais pa nga subir avant lolu xam nga euh, man sumay def émission je dois aussi j'ai un devoir de vérité par rapport aux Sénégalais qui nous suivent. D'accord. Je gis ni Amin Ndiaye ñii bi sommes mu hmm? Hmm. du comportement bu normal. lu hmm. depuis le début. premier xeex bi comme assemblée nationale Amy Ndiaye la woon. mais xeex je lu ko waral. waaw da ngay madame damay damay damay Aji Mergane Kanouté mooy vice présidente Benno Bokk Yaakaar groupe bi groupe parlementaire mosul jàll kenn baat mm-hmm. Ah? Mm-hmm. xam nga souvent xam nga tey jii lan la nit ñi di def nit ñi visé ñu sax léegi femmes yi ñu ngi visé parité bi ne parce que parité bi moo moo tax ay femmes yu médiocre nañ ma ju nañ ma baal ci kàddu gi di dem assemblée nationale mais bul woon loolu kon du ñu dem est-ce que nous, si walu critiquer euh, nous condamnons la violence sur toutes ses formes est-ce que waru len taxaw tamit ñun nous, fa nous di am yenn comportement yo xamné dañ ñukoy jéppé wala publiquement. kon yow da nga japp assemblée nationale elles sont médiocres. non ñaari non c'est que xam nga man. nee naa la xam nga dama ne la dama am devoir de vérité par rapport au Sénégal. dama ne te dama lay dama la jox exemple dama ne la Adji Mergane Kanouté hmm, mooy vice présidente groupe parlementaire te mosul jàll kenn baat bii mooy deuxième mandat am ci assemblée nationale mosul sax am coow ak opposant léegi eh, pourquoi. waaw loolu moom yàgg na biir assemblée nationale. defe a jamono Ablaye Wade moo gënoon a pire. Oui, hmm. Waaw. Choow yag na fo nationale. Mais est-ce que warno kone ma do? Choow dama né choow yag na Assemblée nationale. Hmm. Na ko né ku am dégg 13e euh, Assemblée nationale be. Wa 13e législative. 13e législative be. le Comportement yafa amone. Hmm. Donc ça veut dire que ni kone li yag na hmm. Donc pourquoi tay ñu bëgg cible suñu ñaari?

kan moo ko mais est-ce que tey jii. à partir non xam nga à partir du moment. kan indi assemblée. xam nga lu tax xam nga lu tax man man mënumaa def politique. xam nga lu tax xam nga lu tax man man bi mu waxee loolu. waaw bi mu waxee loolu. Mhm. journaliste bi mënoon na ko imposer mu wax kan moo ko kan moo ko indi assemblée pour mu pour mu arrêter Barthélemy ak ñooñu mu tudd. Mhm. loolu moom la concerné ce sont ses propres propos. waaw moom bu ko neexee mu ne dañ maa indi assemblée sax pour ma tas assemblée. xam nga man lu tax lu ma doon neex si politique si yéen ñaar ñëpp loolu moom. non xam nga lu ma doon neex si politique. si mm. yéen ñaar ñëpp. Mm-hmm. te loolu ma ko bëggoon dégg si émission bi. Mm-hmm. comme par exemple ma dégg Ndeye Ngémé mu ne maa ngi kon na ne li ñu dóor ak ñii bi. quel que soit alpha la violence sur toutes ses formes waaye defoon nag man li nga bëgg condamné mais yeen tamit yeen si seen part rek ma ñëw ci jigéen waaw ma may rek tuuti rek ma ñëw ci jigéen dama ne foofu rek lay déglu waaw dama ne hmm. coow yàgg na bir assemblée nationale hmm. loolu du tay defe nañu duñu lu ñu juddoo ba léegi yàgg nañoo dégg opposition ak parti au pouvoir bir assemblée nationale hmm. rayante coow jamono ñom ñom euh, ñoom Aminata nga jaay mo moo na a metti jamono ñom ay dem mbóoj hmm ko ko ba genn di wàll luñ ko tuddé hmm Nak na mu doon défé mais dafa amone élégance de ñoom dañu amoon élégance totale total total hmm. totale kay je la salue de passage mais hmm. téwul ni da doon défendre bu baax leaderam ak parti bi mu hmm donc ciow yag na bi assemblée nationale lool mom du tay lañ koy wax mënuñu ko bañ hmm. légui naka lañu wara def ba lolu jóge assemblée nationale loolu la war a wax. Mm-hmm. ndaxte dañ ne bu an mbàkkee bu bu ndox tuuroo an mbàkk ci des ma ni de mm-hmm. bu ndox tuuroo nañu waat mm-hmm. nu ñuy rootiwaatee mooy bu jaree ñu teg ay loi wala ay charte yoo xamante ni assemblée nationale bi dina permettre assemblée nationale dootul amati coow dootul amati yenn brutalisme yi. man bu ko jaree ñu signé ko man je suis mais règlement intérieur bi réglé na ko madame. règlement intérieur bi réglé na ko c'est très

sa propre intérêt personnel ou bien ay avantages yo xamante mom nga xalat am bir bir assemblée. d'accord mais nday yéeme nday yéeme règlement bi règle na règlement intérieur bi. Euh, li madame di wax ni règle nako waaw Doudou dafa mais non dafa nag mu ñëw. Mhm. xam nga règlement intérieur bi suñu ko defone normalement. Mhm. tay ji Guy Marius Sagna mën na am suspension vingt quatre heures. Mhm. ndax mom tamit bu mu jëlee urne bi kéro lolu lolu jalgati la. yaa ngi dégg mais règlement intérieur bi dàq na ko heures assemblée nationale mhm. te ken defuko est-ce mhm. que yaakaaru len ni jotna règlement intérieur bi ñu def ko dans toute sa sévérité euh, Doudou moi je pense que ni assemblée bi hmm. jour installation bi ci bopam lañu lañu commencé annoncer les couleurs hmm. parce que depuis man ma juddoo nek ci langue politique ma ci bëgg def 20 ans musuma gis li am assemblée mooy lan ñu ñëw ay gendarme ñoo buddi micro bi buddi micro bi. ay gendarme ñoo installé non micro bi. avant bi moo ëpp moo mujj. non buddi micro bi ak taxaw bu ñu ñëwee di wax. moo jiitu ay violence ci biir assemblée nationale ak viol Ousmane xam nga lu ñu fa indi jour boobu installé président assemblée nationale. xam nga dafa am yoo xamante ni soo des gor yor noppi garme lu baax rek ngay dégg. ba tax nga war a buddi eh, micro rek ngay dégg. buddi micro ba tax nga war a buddi micro assemblée nationale. non dañu moom tegu leen ko fii non non Doudou gis nga. gis nga gis nga boo xoolee li ñu indi assemblée keroog mais Doudou premier faay bu njëkk a taxaw mooy mais assemblée li fa li fa ñëw yëpp dafa war a leer. Hmm. mode sécurité bi ñuy voté bi ñuy bi ñuy voté président assemblée. normalul normalul. d' accord foofu la ñu jiitoon naka la ñuy ñëwee fekk mais attendez. mais loolu expliqué wul mais nday ñeme loolu expliqué wul. micro xam nga ni oui micro moo gën a tuuti ci buddi asa ci ci ci ci nationale. waaw kon kay bu góor bu dee micro. parce que parce que nag parce que nag parce que parce que micro ah, nga wax. ah door chaise yow ah, tamit ah bu fekkee non door chaise bokkul yow tamit. voilà <laughs> moom ngeen koy réeré ngeen fànne. <laughs> Euh, xam nga jigéen sax warul door chaise. loolu normal am na lu mu wax am na am hmm. lu mu wax léegi. am mu ne bu ndox tuuroo an baax lees. Hmm. rootiwaat du yomb de. parce que cinq ans lañ leen. si mën na yomb non non non. mën na yomb dafa am lu leen tëkk biir assemblée. lan moo ñu tëkk assemblée muy muy muy muy muy règlement intérieur. waaw. xam nga ñi nga xam ne ñoo défendre loolu. Hmm. ñu ko waroon njëkkee ñoo ko njëkk a jalgati. ci sa gis et puis ça se ça se comprend. sa hein. sa ça se comprend parce que assemblée xam bu njëkk hmm. opposition dañu néewoon doole biir assemblée. ñu leen di néewal doole ñu leen di néewal doole teg ci. Hmm. mais bii nag opposition bi dafa forte biir assemblée. ndax histoire Sénégal ba mu sosoo ba léegi mosuñu am assemblée bu mel nii. forte bi ñu forte moo waral violence bi ñu. 50 Ah, ah, quatre-vingts députés violence bi mu ne yéen Benno Bokk Yaakaar yàgg ngeen dóor opposant yi foofu de yàgg ngeen leen dóor plus de quatre-vingts députés li nga wax da ngeen fa fort moo tax violence bi plus de quatre am fa yu taxaw jàkkaarloo ak ñoom mais quand man su may déglu Guy Marius Sagna damay am benn fierté boo xamante ni parce que Guy ministre bu fa taxaw xam nga lu mu lay wax waxi ni nga doxalee sa budget waxi chiffre ak ay faits yoo xamante ni mënuloo ko dindi Hmm. mais regarde Amy Ndiaye Gniby bu taxawee ci télé lu muy wax regarde Coura Macky bu taxawee ci tele lu muy wax ñu képp kuy jigeenu senegal laa wax ni la de bu nga xamante ni assemblée ñoo euh, soxal na la teg na la gàcce. yéen a teg gàcce sax benn am nga benn ah wax am nga benn wax. may ko may ko may ko après mu yow di dama xam nga man dama am wax. d'accord je t'écoute religieusement donc gis nga excuse

Ah, d'accord. mission commandée. mission commandée dem di provoquer mais mais mais Doudou. Hmm. suñu Sénégal jigéen bu ëmb ëmb bu ndaw mais dañ lay wax on dirait que est entrée en trace. Hmm. def nit. mais député def. léegi jigéen dem di di naaw boor gauche di dem ah, di xool de doxin la may ma baal di kàddu yi di boucher gauche di boucher droite. waaw ku ne nga yaay fa jëm. di song ay góor yoo xam te lenn ñii xañuñu si yow. ak wax gis nga gis nga jaay wax ju rëy jëmewul Sénégal fenn amuluñ benn njëriñ te wax naa la ko sànq dinaa la ko waxaat gis nga fii nit mun ngaa jàkkaarloo moom saa ko ne du réagir sénégalais ñoo gëm sëriñ dañu am set ay loolu am loolu dooma ci weddi non loolu am loolu dooma ci weddi loolu am loolu te am na loo xam ne nag lii raam ci nag bi la jëm mm-hmm. te yaa gis naa ne fii senegal am na seriñ yoo xam ne bis boo leen tuddoo doo fanaan sa kër loolu am na c'est clair mais sëriñ yooyu bis boo leen tuddee doo fanaan sa kër loolu c'est la réalité sociologique gi ci boppam yoo lay njëkk teg loxo mais dëgg la kenn du nangu ñoom ku leen yàqal la ngay wax waaw ñu ci langue politique su ma ñu seen yëre sëriñ pour wax waxi pour wax waxi politique daal am na fu ñu ko mën waxee nañu xaar seen ay ay ay rassemblement politique ñoom APR dañuy gis chaque jour nañu xaar seen ay meeting bu leen neexee ñu taxaw fa wax wax Moustapha Sy ñoom ñoom la engagé wax sëriñ yooyu mais assemblée nag waxi politique indi wuñu fa ñu seen yëre sëriñ hmm. sol yëre taxaw ci langue politique bi hmm. kon ñooñu mënuñoo wax ci ñoom d'accord kon loolu moom donc seriñ bu dugg si langue politique bi daal yaa toog sa bopp taxawaay politique taxawaay politicien waaw yaa tooñ soo jëlee politicien. waaw taxaw ci langue politique bi. bu la hmm. tontoon pol tontu politique yow yaa leen fekk si waaye fekk si. yaa tooñ sa bopp ndax xam lu tax. Hmm. benn su meegul yëre politique ñoo sol yëre sëriñ. Hmm. am déet. waaw mënul nekk sax mënul am sol yëre sëriñ. mënul nekk kon yow boo sumee sa yëre sëriñ fekk si leen ci seen langue. ah la fa xew rek nga fay fekk de. mooy ko léegi loo looy mooy ko wax ñu tontu. looy tontu si li mu wax léegi léegi. mooy ko wax ñu tontu li muy wax man. li ma ciy tontu du bari puisque moom nee na dafa rus dafa rus en tant que jigéen ci li jigéen ñi def ci biir assemblée nationale man ma rus en tant que sénégalaise ci CEDEAO lim ñu bindal ñun monde entier di ko lire di ko dégg. mu hmm. nekk lu honte mu nekk lu indigne par rapport à nos hommes yi nga xamante ne ñoo nekk biir assemblée nationale bi ma ko liiree démb nelaw ma CEDEAO dafa ne. déclaration du parlement de la CDAO, hmm. samay kàddu CDAO moo hmm. relatif aux abus sur une femme parlementaire à l'Assemblée nationale du Sénégal hmm. titre bi de dafa relatif aux abus titre bi de dafa ruslu kan abus kan lañu abusé sur une femme parlementaire Mmh. femme parlementaire mmh. waxuñu femme tout simplement mmh. femme parlementaire qui am baat cadre, am assemblée nationale man assemblée nationale ñu ne bu Sénégal titre bi moo ko liiree dama rus mu ñoom ñu c'est avec une c'est avec une grande consternation et une profonde indignation que le parlement de la CEDEAO suivi la scène de violence barbare ça m'a de La CEDEAO ñoo toog wax loolu d'accord la scène de violence barbare et ignoble perpétrée sur l'honorable Amin Ndiaye Ndimé Nous, hmm. nga sénégalais nous hmm. taxaw nañu Amin Ndiaye hmm. kon qui ku ko parlement ah d'accord parlement fu mu ça. parlement CDAO, ko nga a de ça. parlement d'accord Vous, me que def bien, bien. mais CEDEAO boobu moo leen ne parrainage baaxul. ngeen ne yéen ñoom non defal ndànk aussi non defal ndànk non defal ndànk non may ma rek mu ñëw may ma mu ñëw may may ma yeggali wax yaakaar naa ni maîtriser naa ko ma tuuti ma wax la et nous hmm. parle de parlement CEDEAO hmm. dañuy évoquer CEDEAO que ça su leen arrangé exactement waaw ah, d'accord CEDEAO a parlé de l'affaire Karim Wade hmm. ñu ne ñoom seen yoon nekk seen yoon nekk parrainage CEDEAO a parlé waxi parrainage ñu ne CEDEAO moomuñu leen moomuñu ñu CEDEAO a parlé de l'affaire Khalifa Sall ñu ne sen yor nekku ci kon donc bu len tay CEDEAO li limi wax ah, arrangé loolu tamit loolu tamit loolu loo ci tontu nag looy tontu ci loolu madame looy tontu ci loolu merci looy tontu ci loolu légui mën naa yeggale ah non day da nga ñëw fi kat andi yeggale dama dama bëgg yégalé rek non tay dama né tay ya nga andi CEDEAO kérok ba CEDEAO waxé ni yéen togn Karim tay yéen togn tooñ waaye dafa nànk rek wa xaaral Dodo Tay, non xam nga yow da nga ñëw pour porter benn communication dama waxi Karim Wade indiwu ma fi ah, mais seen yow tey waa xaaral rek CEDEAO moom bu leen arrangé CEDEAO dafa adressé wu ci violence bi am assemblée nationale bi nga xamante ni ci loolu nga ñu woo ah d' accord nañ moo tax ma souligné ko mais CEDEAO daa wax lii wax lële ma ba mu ci loolu pour ma tontu ci ah d' kon waxi Karim ma fi Hmm. waxi xalifa Sall indiwuma fi. Amin Ndiaye ñii bi moo la fi waxi Amin Ndiaye ñii bi moo ma fi indi. Ah, waaw yéen tooñ. te nag ci li li CEDEAO woo wax ci loolu lay tënk pour wax la ne man li tax ma am gàcce. Hmm. man dama dama rus en tant que sénégalaise li tax ma rus moom laa lay tënkal. waaw tënk nga ko leer na. mu ne mu ne. barbar. laas.

ñun dañoo war a xoolaat suñu bopp. léegi ci assemblée bi mel ni ñu am ay rab. waaw moo tax saaga gi leen xas pour la moo tax moo tax ñu traité leen de violence barbare. moo tax ñu traité leen de violence barbare parce que ma ne. moo tax amoon nañu mille occasion pour wax li ñu bëgg a wax Serigne Moustapha amoon nañu mille occasion pour wax keneen li ñu ko bëgg a wax. assemblée daal ay ay charte moo ñu fa indi ay ponku teug teug ñu ponk tëgguñ tëgguñ tënkuñu voilà kan moo leen béj li ñuy wax nak yow pourquoi Amy Ndiaye bi li mu wax do ko wax ba tax nga pes ko pourquoi Mame Diarra Fam bi ñu koy dóor fi fu ngeen nekkoon yéen ba tax nga pes ko bi ñuy songo Mame Diarra di ko pes bi assemblée fu ngeen nekkoon mais Mame Diarra Fam bañ ko pesé ñep wax nañ ci fa fa ngeen waxee yéen ñi waa bee non arrêtez quand même il faut arrêter quand même tu tuxu fi aussi si lañ nekk dama ne te yoon ñu ñaan yàlla gudd fan. incha allah mais fekk leneen. ate dañuy gudd fan fii la door maam li ma lay wax législature bi ñu génn na. saabu xeexal moom biir assemblée. on nga bëgg teg sa kayit dañoo waxi CEDEAO CEDEAO bi mu wax Karim fu nga nekkoon. CEDEAO bi mu waxee wax Khalifa Sall foo nekkoon. maa ngi fi waaye quand même wax jooju parce que il nous de Ami bi ngeen bëgg ni ñu wax. ci wax jooju duma ci ah wax. am na mille occasion pour wax waxi

yow liin nga ko man liir naa ko xëy na keneen liir na ko waaye xëy na am na ñu ko yëgul. ma ne nekkuñu fi pour def ay lecture CEDEAO. CEDEAO yàgg nañ bind Sénégal di ñaawlu seen comportement. te mosoo fi toog di ko de di ko fi wax. fii da cee raw mais lay moom moo am parole après. ñu jël sa parole waaw bii seen réunion boobu ñu def seen réunion plénière boobu ñuy def ñoom bi ñu ko defee ba pare parlement CEDEAO dafa condamné fermement nee na condamné fermement cet acte ignoble et indigne d'un parlementaire de de l'espèce CEDEAO nee Nous hmm. condamner fermement cet acte ignoble et indigne ce góor war na koo jomal hmm. ci kan ko jëmale ci moro ci jigen. Hmm. bi nga la jur loxo nga minimum de respect la wax. mu né au moment où au moment où l'on assiste à une multiplication des initiatives pour préserver et éliminer la violence à l'égard des femmes. C'est mm-hmm. dafa fini, il mm-hmm. fi ñu war a violence faite aux femmes yow fa ngay violenter femmes. Mm-hmm. ba femmes koy faites comme au Sénégal on ko ñaawlu sax ñu ne esprit sénégalais mais le monde entier la CDAO, on suis en tant que sénégalaise. Mhm. Doudou, oui. on ne peut pas être là mhm. à nous parler mhm. de la CEDEAO que bu leen arranger. waaw ah, loolu tamit am na. CEDEAO yàgg na bind Sénégal. waaw ah. ci ay fait. ñu répondre naan suñu yoon nekku ci CEDEAO. on a ah, une autonomie dañoo am indépendance ak autonomie. sur nos lois CEDEAO xam nga lu ñuy wax. ñun fii Sénégal la li ma la wax depuis le début moo fi nekk. j'appelle man personnellement. sunu ay ay ay député yi nga xamante ni ñoo fa teewal Yewwi Askan Wi ak askan wi ñu am revenu par rapport à ces femmes la ñu garder seen sérénité ñu garder seen sérénité. Hmm. parce que man lii ma gis assemblée lii. Hmm. yàlla nañu yàlla defal jàmm rek. Hmm. ba góor ñu am retenu parce que li ma la wax dinaa ci delluwaat mission commandée lañ nekk. parce que ku xool comportement Coura Macky bu ministre bi di wax. li muy wax sax en tant que de

loolu lañ fa nekkee. kii nee na li nga wax c'est grave. c'est grave c'est de l'accusation. fu mu ko yóbbu rek. mooy noonu parce que li may wax nga dañoo gaaw ci plainte. mission commandée de l'accusation ma plaintee ma wax leen fi ma fi ma ko teg. mission commandée lañ nekk xam nga mission commandée mooy lan. dem leen ngeen perturber ngeen nekk ca assemblée ba bu buñ leen may fu ñu waxee parce que nag opposition ba dañ fa forte léegi. ah mooy wax ji. et puis je pense que ni. opposition bi ñu doon mel ni ñu doon mel du ñu indi député yu bari comportement yi ñu am ko def ma yaakaar. su ngeen fa fot mais le fait que ñu am ko doole bi ñu am moo tax ñu indi yooyu xeetu nit. Ah, pour ñu ah. mais bu ngeen fa amoon doole kon vote du jàll. mais ñoom bëri nañ fa nag léegi. bu ngeen fa fortoon kon vote du jàll. mais est-ce que yéen seen mission mooy lu président Macky Sall teg ngeen teg. mais non ñoom bëri nañ léegi nag. o vingt quand même. lu président teg mu amal njëriñ askan wi mu amal njëriñ askan wi dañ koy voté dañu koy voté déggoo mun nañu dañuy voté affaire yi parce que lu ñu amal njëriñ koy dem lu ñu amuloo njëriñ nag du ci dem kon yéen lu leen amal njëriñ bi assemblée gis xalaat loolu nee na ñoom dañuy voté loi kii budget mais ban budget lañ voté ñoom lu ñu defit lu baaxat limal benn budget bu ñu voté ñoom kon budget noonu yi voté ñoom nañ ko wax rek man mën naa ko bañ a xam mën naa bañ être au courant que ne ñoom voté nañu budget léegi nañ ma ne ñoom budget bi lañu voté mais damay dégg kat ñu ñoom amul damay dégg man dama ne mu ne du teew may nataal man damay dégg wax ma non dégg naa Babacar Mbengue dama wax na ma ban budget lañu voté madame déglu rek ma ne dégg naa Babacar Mbengue hmm. bi Mansour Faye ñëwee mu def intervention def ay doléance am ba pare félicité wu ci euh, euh, ministère bi li ñu def yëpp dans sa commune muy commune wu Hann Bel-Air d'accord ah, yu mel noonu dañ koy rafetlu wala. waaw loolu rafetlu nga wax ak ak vote dama ne. voilà hmm. xëy na yooyu da koy rëcc fortoon kon vote yi du jàll man waxuma waxee rafetlu ñoom dañu forte bi assemblée nationale. ah bëri nañ fa nag. waaw léegi bu ñu fa fortoon laal bu ñu fa amoon kon vote du jàll. non parce que seen ambition mooy lu président Macky Sall ñu teggi ko. lu mais teg pour ambition ensemble mais mais ne. si intérêt peuple bi ñu ko. kon intérêt peuple bi avons une ambition l'assemblée. mais amul yi dañuy gis. Nous avons ay unanimité. ñu Nous ay loi. <laughs> Wow. est-ce que loi voté nañ ah une est-ce que loi une voté nañ ko. une ah, est-ce que loyer ñoom ñu ngi koy voté. léegi est-ce que loyer ñoom ñu ñoom ñoom ñoom ils sont pour. waaw nañ avancé tuuti. léegi gars yi ne nañ ak comportement jigéen yi ngeen am nii jigéen ñi ci conseil municipaux yi du ngeen wax du ngeen fa nekk dara assemblée yéen a fa nekk di xeex loi parité bi sax la ñu war a xoolaat parce que on on élit mal nos nos ndax parité bi moo tax léegi affaire yi jaxasoo jigéen ñi bëri te amuñu fa njëriñ. est-ce que loi parité bi dañ si war a dellu si. loolu moom d'accord naa ci. d'accord si d'accord naa ci loi parité bi. ñu dindi ko. non non pas ñu dindi ko. Ah, ah, ñu ñu bàyyi ko fi. ñu bàyyi ko fi mais ñu réformer ko ba pare ñu appliquer loi yi. parce que bu ñu hmm. nee parité bu ñu parité dañu war a doxal loi bi. Hmm. mais ku ne xam na ni législative bi passé parité amu ci. Hmm. liste yi parité amu ci. donc loolu moom. d'accord naa ñu defaraat loi parité bi même bu ñu ko deful tamit ñu respecté ko. Hmm. bu ñu ko réformé wul ñu respecté ko ku ci nekk rek. ñu même bureau jigéen ñi nee nañ amul parité. parce que boo nee président ma wax rek man dama ko tënk en général dama ne. Hmm, hmm. bi nañ ko respecté dans tous les sens et dans tous les domaines nañ ko respecté ci fànn bu nekk. ku ci nekk rek cër ba nga ca moom muy góor muy jigéen ñu ñu jox la ko parce que loolu moo waral parité bi. nga yéeme bureau parité bi dañ ko war a xoolaat.

à l'entendre de mes propos nee la dafa am ñetti mbir yu ñu tant que l'on ci ministre des pêches bu ñëwé par exemple liñ fa wara wax discuter moy mbirum mm-hmm. peut-être évaluer li passé mm-hmm. discuter ci budget suñu tégalé lu lu nopp mëna tant que loolu wuñ ci problème yi du jeex. Mhm. parité sax du ko dindi. Mhm. ndax man je pense que ni maître lay Wade li mu waroon def ci parité yëpp def na ko. Mhm. dégg naa sànq mu ne réformer moi je pense que loi gi teg nañ ko tënk nañ ko te am na li mu war a àndal yëpp. xam nga li des ñun jigéen ñoo war a xoolaat suñ ko. mais ville de Dakar bi nga nekk ville de bi nga nekk conseil municipal bi. cour suprême nee bureau n'est pas paritaire dañ ko war te boobu ba léegi yéen a ngi koy loo ah <laughs> xaw ma nag loolu lu tax fu ngeen ko teg yéen. yéen oh, waaye yeew yi fan ngeen teg waaw bon je suis désolé mais maa ngi koy soog a dégg parce que man du ma du ma conseillère municipal. waaw. nga de da ngay yëg affaire yi. voilà gars yi nee bi paritaire leen <laughs> ko war a paritaire non je ne pense pas euh, loolu dafa dafa dafa doy waar parce que naa su nekkoon dëgg. ñu ñu hmm. jàkkaarloo ñu may dara. ah cour suprême nee na da ngeen ko war reprendre ah euh, ngeen si si kii yi ñu ne bureau yooyu dañ ko war a reprendre comme yeneen communes yu bëri ah parce que peut-être des fois ay lay doon mm-hmm. ci ci biir vote nee nañ vice président parce que nee nañ premier adjoint au maire bi première adjointe la war a nekk ah, jigéen la war a nekk te yéen da ngeen ko jox Abbas Fall

On nañ teg jigéen. Hmm. mais hormis peut-être euh, maire bi on parle des des des des des des adjoints maires. Hmm. moi je pense que ni teg nañu góor après teg jigéen. Hmm. yow jàpp nga ni jàpp nga ni jàpp nga ni bu ñuy génnee bu maire bi moo waroon. nekk ci kaw waa waa COSEF. waaw bi ñu planté. Mhm. waa waa waa waa ville de Dakar. Mhm. dañu ne que kii moo waroon nekk euh, jigéen moo waroon topp.

ñoom d'accorduñ ah jigéen ñi. d'accorduñu si wa dafa manque rek premier vice président yéen tamit. damay bañ ko tek damay bañ faté point bi. waaw damay rebondir parce que moi je pense que ni lolu du du du problème en fait. damay rebondir mais jigéen dañ ko war a xeex waaw je pense que du problème. du problème parce que tek euh, adjointe maire bu jigéen ville Dakar am na mus am adjoint mais je pense que débat là en fait. Hmm. voilà peut-être bu ñu ko mënee changer nous changer quoi, amul amul amul amul amul gravité. Hmm. donc damay rebondir tuuti. Hmm. ci li madame euh, Ndiémé ngay wax. ci jigéen ñi. ci bon jigéen ñi ak ak constitution yi mais jigéen ñi ak place yi leen di jox. ñi hmm. nga xamante ni ñoom ñoo ko war a diriger. Hmm. dëgg la war nañ ko xoolaat bu baax li ma wax sànq rek l'homme qu'il faut la place qu'il faut. ku ci nekk rek jigéen bu ci ne rek fi ñu lay jox lañu war a xam ba dañ la war a saytu ba xam ndax maîtriser nga ko. Je mën ko en tant que directrice de la piscine de l'Olympique je vous félicite et je vous encourage fait nañ scandale bu fait un scandale ah mais bien sûr. ah Un scandale mais oh, scandale. <laughs> y scandale ah? euh, piscine olympique. Mm-hmm. mois de novembre Non. loolu yàggul. mais da ngay wax scandale lan la. te durant ñu xam piscine olympique mosuñu fa dégg coow. waaw mais non waaw da ngay wax coow lan la en tant directrice yow ngay jigéen. waaw scandale am fa. ba ñu woo la wax la audité kon ça veut dire que ni jigéen ñi war nañu xoolaat seen bopp. ah bon dañ ko waroon audité. moo ma ko yëgal defi ci plateau bi yëguma ko woon. ah. ñu ko audité. je je ah dina tontu waaw tontu ci voilà Doudou. Hmm. donc su un scandale de am ba ñu war ma auditer bon c'est une surprise Je ngi koy doog a dégg fii moom moo ma ko moo ma mission audit woowuñu ma. pas audit non non non oui ma li nga wax rek ma may ma tuuti rek te plaît s'il te plaît ma ma grande. samay propos. voilà. pas audit dama ne. scandale bi fa amone mm-hmm. mais tu as été convoqué le 3 novembre passé ou bien le 7 je crois.

du perturber ña nga xamante ñoo fa nek depuis pendant des années di fa di fa def sen sport te te lolu musul am bir euh, euh biir piscine olympique piscine olympique bañ ko dalay dégg ba léegi musul leen dégg ci scandale musul leen dégg ci ciow ah bon déedéet. man de su ma ko dégg ça ça se voit que maîtriser wul daanaka li muy wax. maîtriser naa ko bu baax du tu es agent à la ville de Dakar. ku hmm. xam piscine. Hmm. xam ne dañu baaxoo. Les les ak euh, xëccoo ak fédération. Hmm. musu fa ça fait depuis Mamina Yamina cham hmm. ba ça fait plus de 20 ans. Hmm. ñu bari jaar nañ fi. Euh, dina léral parce que xeyna defuma ci sortie jarul wax. dafa am ñuy def ben art bu ñuy wax craft Maga. ils sont là-bas à la piscine depuis 5 ans d'ailleurs courrier yep génne naa ko jox ko urbaine. Madame, je suis né et grandi à la Médina. Hmm. Comme moi. Dans une je bonne famille. suis à la Médina. Hmm. une parle d'armée. Hmm. depuis que je suis musul le conseil municipal réunion de coordination. Il y a pas d'armée à la piscine. Amul armée. amul amul amul yu ay armes mais dafa tu me parles xam lan bon ci ah. wax genre sujet boobu ngay wax nga maîtriser ko bu baax. gëstu si bu baax balaa ngay ñëw mais déglu ma da may dafa am ay xale yu armé. non non non non non tu écoutes wala bëggoo leeral quand même voilà waaw est-ce que dafa am ay xale. yu armé jusqu'aux dents ça n'existe nulle part là-bas. ñan ñoo fa nekk. xam nga ñu fa nekk. Hmm. des fédérations kung-fu karaté viet vo dao hmm. ak ñooñu def Krav Maga. ak qui sont là ak volontaire ville de Dakar. Mm. te volontaire ville de Dakar yoru yat. xam nga Doudou li may wax ci. mais des volontaires yu ñëw di perturber ñi nga xam dañu ñëw di fay seen xaalis pour def seen sport. yow yaa fi gis perturbation. mais perturbation moo tax mais lu tax ñu woo leen kon. kan la ñu woo. yow man la ñu woo pour ah, loolu. Ah. gis nga li may waxatee. mais leeral loolu nday jéem mais on m'a pas convoqué pour ça on m'a ne ma ñiy def Krav Maga lan lañ fay def. Hmm. mais non mais tu m'écoutes arrête da nga bëgg a leerlu. non dama waaw moo tax ñiy def kalaaf maga am na. ñiy def kalaaf maga am na droit moom tamit. bu amoon lenn lu ci nekk. waaw ñooñu loolu duñ ko bàyyi. kalaaf maga. waaw mooy ñi dañu dañuy ne comme genre viet vol daaw la.

pour nous, dañu un entraînement par la suite je n'ai pas eu même le temps de répondre lettres, lettres. Hmm. tous ces documents là hmm. depuis 5 ans jël Ils ko là, hmm. ils sont là entraînés comme tout le monde hein, comme ah, tout bon sénégalais ah, audition voilà audition voilà d'accord comme audition fédération ñi Sénégal Mm-hmm. am fédération karaté représentée par saint césar fédération kung fu ñi ngi fa mais fédération yi ngay lim fédération natation ñi ngi fa fédération yi ngay bi ngay wax nonu tak li tax ñu may wo ña nga fa won mais bi nga ñëw la perturbation bi am non y a pas de perturbation si si si madame y a pas de perturbation là bas perturbation madame y a pas de perturbation amna amul perturbation petit ñewal da nga mëgg gis bo xeye nga ñoo tok dal san comme to amulo xamna bari wo dara bari wo activité non non mais sama la la wax na la wax na la wax ben mbir hmm. gis nga piscine

loolu mooy sama rôle. donc mooy li ma la fekk rek en tant que femme ñoom ñoom nee nañ lu ñu soupçonné. waaw ñoom nee nañ lu ñu mooy da ngeen fay former ay xale yoo xam ne. bés bu ngeen leen soxlaa. <laughs> ñooy song gars yi. non non loolu amul fa non ah bon fu ñu leen soxlaa yow tamit nag. ah fu ñu leen soxlaawul. oui ma ah, madame fu ñu leen soxla loolu amu fa koo dem ba di ko xalaat formé waaw mais déglu moom tamit nee loolu amu fa yow tamit xam nga le problème xam yoyu yooyu doxu ci moom moom en personne représenté na macha allah personnes. te yow yaakaar naa ni yow comme ni nga wax sànq tu es issu d'une bonne famille doo dem di. xanaa di di préparer ay ñu yu manqué yu manqué yooyu nag duudu quand même. xanaa doo dem man neex yàlla. waaw fekkoon dañuy former armée daa ñu génn dem booru kii dugg ca àll ba wala feneen waaye dugg point e gii nga xamante ni bii euh, antenne euh, comment dire je Sonatel yeeg yëpp nga fa xam nga nag wax dëgg yàlla bu wax feebaree. nopp yi koy déglu jéem a wér nag.

ça veut dire que ne te ba nga ko xalaatee nga gis nga yow nag sa genre sa genre gii ñoo tas réew mi tas tasuma réew mi ñu recruter ñu leen gis ñu fa la lay ci micro bi micro bi micro bi comment on peut recruter les gens fa fekk fekkee yi tamit fédération yëpp fa lañ leen fekk bu ngeen leen fa fekkee yi tamit lan lañ ci def ci seen ren le scandale boobu am ba ñu woo leen ci waaw mais yow suba sax mën nañ laa woo ci leneen kii see fa dégg Mm-hmm. yow suba sax mën nañ la wo kon nak liñ lay buñ lay woo kay dafa fekk liñ lay jiiñ do ko def. sax ma indi loolu. Mm-hmm. dama doon répondre ah? rek ci femme yi nga wax ni dañ leen di cédé. Mm-hmm. ay fonctions yo xamante peut-être que xeyna na du seen place wala maîtriser wuñ ko. donc femme yow en tant que femme boo nekkee directrice. de la piscine olympique loolu am fa kon mën nañ ne tu as failli à ta mission. d'accord yow de bokk nga ci ñi ñi ñu war a former. ah waa d' accord parce yaakaar naa ne booy dem ci plateau di poser yenn argument yi. waxal ci micro argument ban argument li ngay wax ni. tu nous hmm. parles d' audit je sais pas quoi. non non audition war nga mun a dama ne war nga mun a au li ngay wax am ay argument ba lu ma teg a teggi. dama ne Doudou attends ma dellu si samay propos. voilà parce que ku nekk da ngay juum. Hmm. dama ne Doudou may ma ma dellu si waat samay propos. Hmm. mais nangu boo déglu ma bàyyi la nga continuer mais bi nga continuer leeral. d' accord léegi léegi léegi ñu avancer. saa waay Fatou Ndoye Fatou Ndoye ñun ñun duñu ay duñu ay armée Fatou Ndoye amuñu pour recruter ay armée te yaakaar naa ne dofa ñu jinne mbejuñu ba ñu war a dem ci piscine olympique biir point E quartier résidentiel bu nga xamante ni ay radar ñëpp a di poser seen antenne ji bi kii dund Sénégal ku xam-xam ni vidéo surveillance mu fi ëpp léegi dama ne dañuy yaakaar naa ne kuy def musiba doo dugg ci biir bi si day ko defee yàlla na yàlla defal jàmm nañ avancé damay ñaan jàmm rek te sa genre jigéen gi bokk na ci ñi war a defal formation ñoo xam ne nañ avancé xanaa ko yow tamit defal la formation nañ avancé ndax ba nga fa ñëwee la la ñu dégg nañ avancé nañ avancé que nekk man j'ai fait 22 ans à la ville de Dakar non non je parle je parle pas de la ville de Dakar je parle de la piscine non parce que la ville de Dakar moo moo moo yilif piscine olympique en tant que directrice voilà léegi nañu avancer. tuuti. ça veut dire que maîtriser woo li ngay wax. je suis désolé pour toi. je dis en tant que directrice de la piscine. Euh, voilà olympique. nañ nañ avancer tuuti waxuma ville de Dakar. nañ avancé ville de Dakar nak fala laa fala fa laa bokk. ton information. D'accord. merci j'ai fait 22 ans de service merci pour l'info, madame. voilà nañ avancer tuuti. D'accord dodo. Doudou. fi yéen laa koy tàmbalee. Mm-hmm. Macky Sall. Mm-hmm. am na sañ-sañoon samp ndëndëm 2024 wala amul sañ-sañ bi très une femme qui une porte candidature ça, c'est ça, mais plateforme des femmes cadres. Non. aussi. Mm-hmm. Euh, parce que du débat. Mm. du le troisième mandat y ngay wax. deuxième quinquennat. wala troisième mandat le deuxième quinquennat parce que le débat. Si wax dañuy wax second quinquennat mais pas deuxième parce que quand il y a deuxième il y a troisième. et il y a hmm. premier ici il n'y a pas de deuxième ni troisième on parle de second quinquennat. Le hmm. second quinquennat la loi de mort ko parce que je suis désolé, ci puisque son excellence le président Macky Sall je ne boppam prononcé wu ci kon man sax mën de ci bañ

second quinquennat bi nak loi bi moko ko permettre. moy ban kagn lay commencer kagn lay. moy 5 ans bi mu nek nok moy bi jeex moy bi di jeex ni mooy deuxième bi. jeex moy mooy premier bi. ah bi moy premier mooy premier quinquennat bi. deuxième bi deux mille vingt quatre deux mille second bi moy bi di ñëw. moy 2024 2029 vingt quatre waral li ko lay laaj pour mu leer pour après mom buy. ton pour mu leer second quinquennat bi moy bi wara a moy 2024 2029 moy second quinquennat leer na nañ kon mom amna na droit sampaat ndëndëm.

dafa wax ci mandat bi waxaat ci mandat bi waxaat ci troisième mandat bi yaakaar naa ne bon je même pas besoin di wax sénégalais yi lam ca wax ndax vidéo yi moom foo tourné gis ko. mais léegi nee ni oui ni non. ñu demaat ci euh, Ismaïla Madior Fall. Hmm. mu taxaw devant des journalistes comme vous ne réew mi fi mu toll nii vérifié nañ constitution bi nit mënatu fee def ñetti mandat ma baamtuwaat ko deux fois ma baamtuwaat ko troisième fois xam nga ay nit bo len jiitee da ngay dalal sen xel. Mhm. ñak dalal xelu Sénégalais moy faire revenir aux affaires de la justice pour euh, Ismaïla Madior Fall. waaw mhm. foofu la tiitaange juree. Mhm. té bo xolé Afrique troisième mandat dëkk yu bari li leen plombé foofu la jógee. moo leen tal moo leen tal te bon da ngay def li ngay def rek mais après li xew yow choses qui ko maîtriser. Hmm. parce que yàpp naa ni li fi xew mars c'est tout récent si passé bu récent la yal ci yàlla musal et je pense que ni a na yàlla delloo si seen xel ba ñu bañ ci parce que les Sénégalais ne méritent pas ça. Hmm. je sais pas si elle était là ou pas mais ñun ñu ngi woon place de l'obélisque place de euh, de de de euh, assemblée. ak hmm. Macky Sall. Hmm. di xeex troisième mandat. Hmm. te ñu gis li mu jural Sénégal lépp. Hmm. ak fi Sénégal tollu nguur jar ko. dégg nga dégg naa bu baax li ma wax waaye defe naa ni booy wax éthique. seen président moo wax leer leeral. leer leeral la waaw sunu président lu mu wax. ah lu mu wax. dafa ne pare na. dafa ne dafay samp ci livre dafa ne dafay tegal troisième mandat ah déet nee na wax na ko waxaat ko. fan la ko non wax wax si mandaa bi. lan la wax si mandat bi. non bind ba si bind si livre. lu bind ci livre nee na pare na. pare na pour. 2024 day pare. day pare pour teg ndëndam. day pare day pare. day pare lan. <laughs> mais madame yow tam dootul tegati ndëndam dootul tegati ndëndam. dama ne day pare lan la wax. day pare jeexal mandat am jeex na day jeexal 2024. waaw moom loolu la bind. waaw waaw léegi moom waxagul nañ ko déglu. ah wax na kay mënu ma ci ah mais femmes yi waxuñu loolu. femme yi ñoom loolu la ko. dama mais madame Dia. bu bokk si même kuréel ko yow dafa nànk rek. waaw waxal waxal. si même kuréel ko yow. nee na ñoom ñoo proposer la candidature de Macky Sall su bañee ñu dem loxo loxo bi. donc wala yow d'accord si ñoom ñuy wax madame Dia dafa ne. waaw ñoom ñoo ko proposé le président Macky Sall. waaw su bañee ñu dama loxo. waaw donc c'est une demande d'accord nga ci loolu. donc donc c'est une demande sociale. donc demande sociale moom bu ñu dee demande sociale moom demande sociale. demande ci olof mooy li askan yëpp bëgg. askan bëgg laaj ko. ñoom nee nañu ñoom nee nañu nag nangu leen nag kon dañ ko koy sas bu bañee ñu dama loxoom waaw ne ko lii la ñu bëgg ndax askan wee ko laaj demande sociale nag mooy askan sa askan rek tax laa jóg nga jox leen nopp di askan bëgg nak bu ñu dee xaal njabootam leer na wax bi sóoratul la jeex na xam nga lan moo gën a ah demande sociale xam nga lan moo gën a sonal sénégalais waaw cette malhonnêteté sonal yenn politiciens ah si et c'est euh, dodo Quand elle nous parle de demande sociale. Tu perds l'Assemblée nationale. plus de 80 députés de l'opposition et tu nous parles de demande sociale. mais opposition ah, mais déjà mais législative bi passé rek ku nekk nga taxaw di xëccoo député naan kii sama député laaj nombre bi maa koy féetoo nombre bi maa koy féetoo. donc on parle de on parle de Yewwi Askan Wi donc. Mmh. gis nga gis nga. donc yéen rek seen bopp gis nga Doudou. Mmh. dangereux. mais on parle de Yewi Askan On parle de on parle xam nga lan moo ñu lan moo ñu tënk ñun ñëpp. Mmh. wala lan moo nekk au-dessus de nous tous. c'est le Sénégal. réew mi. tranquillité tranquillité réew mi daf ñu war a yitteel ñun ñëpp te ku nekk gis le troisième mandat li mu def ci Adina bi. le troisième mandat madame. qu'il a def ci Adina. bi troisième mandat ça existe pas. ngeen deuxième quinquennat wax. second quinquennat. oui je ne suis même pas contre. deuxième je suis même contre le eh, deuxième. le deuxième quinquennat. je suis je parle de second quinquennat. mais second quinquennat. Oh, monsieur gis nga xaw ma madame. Oui, mais nag li mu wax tubaab la de. dama ne waxul deuxième quinquennat second quinquennat la ya. mais ngay ñeme leer na ak demande sociale.

dëggal leen seen bopp rek. ñun ñun pare nañ li ngeen bëgg. ngeen ne di dem uti troisième mandat. dama dëggal leen seen bopp. man waxuma troisième mandat li xale yi di wax dootoo leen lañu wax yow concept mandat. vraiment ñoom ñuy waxuñu mais pourquoi yéen ngeen bëgg leen non mais léegi tamit. pour nga leen wax loolu ñu waxul. parce que dañu bëgg non mënoo leen leen arrêté mënoo leen leen wax loo sax xam naa ne y' a problème non non non attends attends day ñëw non attends constitution bi waxuñu ay second quinquennat constitution premier mandat la wax deuxième mandat exclu troisième mandat point on ne parle pas de mm. quinquennat parce que quinquennat loolu la. mais li mu def si Sénégal lay waxu quinquennat loolu moom doo ci discuter. lan la wax constitution bi changé guñ ko de. mais constitution bi muy wax loolu boobu kañ la boobu boo voté nañu référendum wala voté. dañ ko laalaat après référendum bi da nga ko fàtte yow. boo voté njëkk a problème mandat bi. 2001 mu dolliwaat ci dàbbali moom président wa. dama ne dommage référendum la ñu limité les mandats à deux. à deux. à deux moom mu ñëw sa président ñëw dëggal ko à sept ans.

non mais Macky non defal nànk defal nànk defal nànk rek defal nànk xam nga madame man tam dama am devoir de leeral. leeralal. 2005 2007 la ñu def mhm. présidentielle. Mhm. teg ci 5 ans muy 2012. 5 mhm. ans muy 2012 kon xam nga quinquennat la woon. boobu quinquennat jóge nañ septennat dem quinquennat. yaa ngi dégg. Macky Sall ñëw jël affaire bi 2012 ñëw ne mandat bi il faut ñu régler problème mu septennat bi. Mon président Macky Sall au pouvoir mandat bi ci au pouvoir. Mhm. mandat bi ans la ko bëggoon j'aimerais bien am vidéo Macky Sall. Mhm. mandat bi ans la ci kanamu Sénégalais dama ak ki ki constitution bi Sénégalais Sénégalais mhm. on nous parle de 7 ans 5 ans mu ne carrément dama né Sénégal kenn mënatu fi def 3 mandats. hmm ñi waxu ñu mandat quinquennat la ñu wax. second quinquennat. Doudou. déglu ko rek mu leeral. lan mooy yow lan mooy si yow lan mooy woowee second quinquennat. dama ne eh, lan mooy second quinquennat. son excellence le président mané constitution bi liiruma ci lolu son excellence le président Macky Sall bi koy fal dañ ko fal ci mandat wu 7 ans et mandat bobu moko moko permettre mu mën réduire le mandat à 5 ans. Vrai ou faux Oui. Bim ko réduire, ñu nangul ko ko. Mais dañ ko ni nul ne peut exercer deux mandats exécutifs. Exécutif. Consécutif. Consécutif. Consécutif. De 5 ans. waxuñu loolu de. mais bu ñu réduire mandat à 5 ans article 27 non. bu ñu réduire mandat à 5 mandat bi 5 ans xam nga fii ñëpp a jàng aussi xam nga a jàng. ni ko foofu. non article 27 ñaari alinéa la. dama da nga may déglu rek da may déglu dama ne li wax dama ko maîtriser dama ne bu ñu nee mënuñu exercer deux mandats mandat 5 ans bi la ñu wax. mais defal nag non ma defal nag. madame parce que bi ñu koy fal. madame français français lañ ko bindee. ñu mën ko tënk ci olof daa yomb mm-hmm. article 27 sept ñaar fukki ñaar fukkeelu article bu constitution bi mm-hmm. dafa ne ñaari alinéa la maanaam ñaari point yu bokkul boo déggee alinéa mm-hmm. mooy ñaari point yu bokkul ñu ne la durée du mandat est de 5 ans d'accord ñu dem si deuxième alinéa bi dafa nank rek waxuñu et waxuñu donc waxuñu or waxuñu conjonction <laughs>

d'accordal naa leen ko politique dafa am ay subtilité mhm. yoo xam ne moom ngay utiliser souvent pour nax sa adversaire ñii dégguñu woon tubaab ah, non ñii dégguñu tubaab non ah kii moo ko wax di Ismaïla Madior Fall ak Mame Mbaye Niang ñu ne ñii dégguñu tubaab ñu nax leen dama ne dégguñu tubaab dama ne bi loi boobu ñu koy voté hmm. fekk nañu fal Macky Sall le président son excellence Macky Sall ci mandat bu donc si nous, ñëwee un mandat ans. nul ne peut exercer. plus de deux mandats. consécutifs ça veut dire que nous, nous ci 5 ans bi ans bi mais pas 7 ans mais nul ne dafa effacer 7 ans nul nul effacer. nul nul nul. nul non nul grave. <laughs> c'est dommage. nul ne non nul efface tout ce qu'il y a derrière le mot nul. Doudou yow <laughs> ah non ah man de yow C'est propos propos sama c'est difficile C'est difficile. C'est la sama difficile. la. sa C'est la. non tu fais que lire les constitution voilà article 27. yow la nga lire parce que constitution non non non non lire yow difficile. nga lire wul ba wul ba man man lire. Ah. te xam ko nous on parle de second quinquennat point mais pas de troisième mandat. bon li ci des nak mënu ci sawri parce que son excellent le président Macky Sall prononcé gu prononcé gu ci. yéen de yéen a porté loolu yéen yéen ah, yéen jigéen ñi yéen. plateforme ni dafa naan mais plateforme. ñoo ko porté mais yéen ko porté. bu baax bo loolu tax na léegi doole bi ngeen am sax léegi ci biir APR. kenn mën na antanatu leen parce que léegi yéen la gaay yi la gaay gëm. même président yéen la gëm. depuis bi ngeen waxee loolu Macky Sall daf ñoo recevoir à bras ouverts waaw. masha allah ñu koy remercier de pas de passage accepté ñu parce que dafa. li ngeen ko wax kat moko neex non non ah ah attention non ko ñëw ne ko dafa jox nopp askanam jox nopp njabotam te ñun ci njabotam lañu bok kon buñ taxawé ne dañu bëgg nga ñëw taxaw yeggali sa liggéey ndax fi nga commencé neex nañu. mais mënon na leen tontu ni. lu muy amu ci droit lu amu si droit amu ci droit te loi may ko te loi may ko un second quinquennat nga ni amu ci droit. kon kañ moom tontu na nii wii nii noobi cëm na day bokk. ay kon moom day bokk. loolu la mais wax parce que Macky Sall euh, waxagul wii wala ñu ngi président Macky Sall dafa bokkoon ci ñu doon xeex euh, troisième mandat wu Abdoulaye Wade. ñu daan nekk ci place de l'Obélisque. ñu ko hmm. daan gis na image yoo xam ne dañu sama bët. boobu yaakaar naa ñu ci bari ñu ko topp nii ànduñu woon ak moom. Hmm. 2011 là ànd ak moom ba faloogul. donc euh, donc euh, mën la bañ a concerné wax donc euh, dañ ko daan gis mu ñëw di xeex troisième mandat. Mhm. mu xam troisième mandat li mu jur ci Sénégal jur ko ci Afrique donc je pense que jaru ko su ma mee conseil bu may wax rek mooy que ni nañu dellu gannaaw ci loolu. mais ay jigéenam ñoo ko ñaan ay ay ak yi. nday njéeme xamante ni Sénégal nday njéeme. wax dëgg ne yàlla bëgguñu ñu delloo ay 2012. nday njéeme yéen yéen yéen. yéen jigéenu xalifa yi. waaw. bu ngeen demone ñaan khalifa ne ko nekkal candidat mm. mais day nekk candidat mais mom tamit dafa wara top ay jigéenu dama ne Doudou amul ay problème mandat Doudou Khalifa Sall waaw nekku ci ay mais mu nak mu ngeen dem ñaan ko leneen aussi mu may leen ko mais sama ah. may naa ko sama jigeen dama ne gis nga Macky Sall waaw fi may hmm c'est le gardien de la constitution hmm. point hmm. waaw te constitution bi nee nul n'a le droit de faire plus de deux mandats consécutifs ñun plateforme des femmes cadres li ñuy ñaan son excellence président Macky Sall dafa fekk loi bi moo ko may ñaanuñu ko loo xamante ne. te yéen koy dëggal di ko réitéré. Hmm? bu baax. ay yéen plateforme est du ngeen andi coow fii si réew mi. waaw loolu bu andee coow nag li ngeen bëgg noonu bu andee coow. wala nar yàq réew mi la indi coow day ñu bëgg indi coow ñi yàq réew dafay fekk ñu bëgg ñu yàq réew mi parce que yow. mais man foogoon jigéen moo war a dox jàmm. duudu yow boo xamee sa droit. xam li la droit may ba pare nga wëlbati ko nangu sa loi lim la may defe naa nag loolu bu lu ko sa sa njaboot ñaane war na mën a yomb ci yow. d'accord léegi ñu jeexalee benn point vraiment si lu gàtt euh, of nag dañoo jël Serigne Bassirou Gueye jox ko ñu bëri ne waruñu ko jox parce que moom il a un passé douteux ñu bëri wax nañu. mais am nañu yéen tamit ñu fi toog ne président moom moom décret mooy fal ku ko neex moo ko jël fal ko yow si nomination Bassirou Guèye bopp of nag loo ci wax. dama bëgg laaj Bassirou Guèye xanaa moom du sénégalais. sénégalais bu wóor la. waaw Bassirou Guèye. Bassirou Guèye. sénégalais la sénégalais la. waaw bu wóor ci réew mi la dëkk. bu wóor. waaw léegi la mais léegi ban problème moo ci am moom bu président Macky Sall sentir na poste bii moom. kii mën na ko doxal. di sénégalais en tant que sénégalais. Hmm. mu jox ko ko loolu yaa problème. ah gëmuma ni war na am problème wax jooju man dama ah, sori ah, laaj nday jéeme bu amul problème rek ñu tëj émission bi. tu nous as parlé de passé d'auteur. non gars yi ñoo ko wax de dama ne dama doon. Ah, gars yi waxuñu ko aussi euh, ñu ngi fi ah. loolu moom ñi ko wax la concerne vraiment waaw ñi ko wax ñi ko wax non dama doon tënk rek. gis nañu gis nañu ce qui se passe fii. lu xew Bassirou acharnement bi mu nekkee ci ci opposants yi j'espère que rek du ko yóbbu af nag yal nañu yàlla defal jàmm. amiin yaa rabbi. kon ñu ngi leen di gërëm bu baax a baax ñu ngi gërëm nday Ndiémé géey Ndeye Ndiémé géey mu ngi bokk si ñi nga xam ni ñoo ànd ak Khalifa Ababacar Sall nekk ci coalition yi moom nag actuellement mooy exercer li nga xam ne mooy fonction wu directrice de la piscine olympique ah, di gërëm bu baax a baax ñi nga xam ne ñooy jigéen ñi jigéen ñi nga xam ne ñooy plateforme des femmes ñoom ñoo porte ñoom ñoo ñaam président ñoo Macky Sall pour mu nekkaat candidat te nee nañ ko boo bëggul nekk candidat nañ damm solo pour nga nekkat candidat ki len fi teewaloon tay moy Fatou ndoy ñu koy woowee Ndoye Chérif di bu baaxa baax di sante sant ci wai. bi li moy débat yi ngeen di am ci public point allah suba dinañu defaat benen plateau à partir de 16h30 di gëreum bu baaxa baax suñu invité di gëreum wai régie di gëreum yeen ñëpp di internet yi nga xamni yéen ñuy suivre ci public point sn bu fàtte abonné wu ngir lépp loo xam ni mooy actualité yi bañ leen di raw abonné wu leen gaaw acca jërëjëf merci beaucoup